nañ ci dem gis nga kepp yi du ma man di jënd waa koñ bi ñëw di weer si di yóbbu ngay réeral sama bakkan laa ci gar kepp yi dee ko toppatoo dégg nga li ma la wax. te du chaque jour ma dindi ko doo ko laaj kebe ak teelu ñoo koy génnee chaque jour. de bii laa lay indil. nii man maa ko moom nii. barki yàlla. ah lii moom rafet na de ah waaye yow Sangor lu ma lay wax yow bët ki dem nga ma indil collier bu cher ba fa ma ko takk ñu laaj ma tey nga indil ma portable bi te war naa cher. loolu jër la tudd barki Rasulullah lu ma am rek yaay borom. rafet na moom rafet na torop. trois cent mille lay gin ah yow lii dafa cher. gisoo ko nii mu mel ni ab ardoise nii comme alibe yooyu nga ne di jàng. bilaay walaay te lay. pose samay weer rek a ci des. tey mais nag ko ma dem lijjanti leneen. doo toog téye ko foofu rek. man aw ma toogaay. ci des. ah téye samay morom. d'accord. ma may. laajuma la. ay yaay xam nga fooy mujj. ca kaso ba yaa moom. kii sàcc la day sàcc di la andil. ay yaay sa bopp. dégg naa mu ne barki démb nga naan ko collier bu rafet nga ma ne fu ma ko sol ñu ah waaw foo sol ñu ne sàcc baa ngi. yaa nag bu la moo ndeeti li jox la ma ta fal samay nopp mu naan juróom benn fukki junni la. koy jëlee moom lay jar dafa cher. man nag indiwuma lekk indiwuma ndékki dara bu dee man nag di nga fa dee. loolu yëpp duñu ci fekk xoolal lii sama liggéeyu nday la dama ko war a lekk di ko. kan moo liggéey lu yow dara mu ma ma imbécile sonn sa kër bàyyi gi li na ma muñal ko ko nga naa ma maa liggéey alalu sàcc bëgg yëpp xam naa ko waaye duma ko def tamit maale moom mooy seytaane bi di jaxase ci biir kër gi waaye dinaa ko yor ba mu neex téye portable comme samay morom loolu ngeen ma bañal dinaa ko téye ba mu neex comme samay morom léegi tax dama fee nekkatul di raxas léegi damay génn comme sama morom di def va et vient bëgg teg fii rek may raxas ko togg duma ko sax def waaw Baye Cheikh waaw waxal maam Fam mu may ma benn ordinateur portable waaw ah, gis nga waaw. <laughs> Eh. sama téléphone. boo ko waxatee xam de wey. sàcceej sàcceej wuub sàcceej nga. <laughs> waaw kay nag ndax nga xelil ma sax man ci ndox moom ma naan damaa sonn a dee. mu ma ma ndox mi nga li ma naan. ndox mi. Mm. du jaar fii. ah lu waral loolu. <laughs> waxal leneen yow nga indi fi sa sàcc ah mu fàttali mu dara nga naan ma ndox ci maa ko jënd. Eh, may ma sama jàmm kooku sàcc lu muy sàcc. ah sàccul dara dafa yor dooleem di ko utiliser. yaay sàmm lu la teree utiliser sa doole. nan la ñuy utiliser de. ah waaw waaw. kon baax waaw naanal may ma. mayuma la nga naan. waaw demal naanal. bàyyi bàyyi bàyyi glacière bi. Eh, baal ga baal baal glacière bi bàyyi. dégg dégg bàyyi lii. bàyyiwuma. doo dégg. baal glacière bi booy naan doon naan ci pot bi. naanoo bàyyi woon nit ñi naan pour lan. ah affaire doole def. a def ak maanaam bu rëy bii. mu naan saaj su retraite def ni moom ku tekki ngeen avancé portable yu baax yi may indil mooy dagg sa xol bi waaye naa ko téye ba mu neex. tey saa nga. lu bees lépp jàpp. xoolal maa lu bees. waaye maa ngi nii rek bàyyi. waaye wala bii de bàyyi mënu ma ci dara dara dara dara dara dara. yow dese ngaa a attaaya. ah lu def. al ma ko nii. jox la. maa la ci tene de attaaya. naa ne maa la ci tene de. kaay seera ko nii. boo ko ci tene doo ko fi defee de. jógal sàcc bi yow loo fi wut da ngaa mënta bas sama kër gii. waa yaay nag yaay nag yaay nag li ma ci métti yëpp bëri na bàyyil doomu jàmbur ji nag. dama koo jàpp. waaw déedéet da nga koo jàpp kay sàcc bi nga koy bàyyil kii mu firi. dama koo létt ba mu fireeku. ah déedéet. waaye lu sagat. waaw bu yow jërëjëf. kii sama cousin la war na fee yenn war na fee fanaan musulaa sàcc. fu ma ko ne aw ma fu ma koy kii kii ma war noo ma fan laa koy téye. waaw kon waaw wàcc ko ko. dama koo war. da koo war kay. damaa bëgg mu génn kër gi kër Codé Ndiaye nag laa jëm maa ngi dem maa ngi dikk léegi su ma ko fekkee dina am li ma dégg mag bu nekkee ci gone buy wax day wot di wax. ok papa. ah kii sama jarbaata. mu ne ci kër gi sama doom ji bëgg ko moo bon ku ma ah? bëgg. yaa bon koo jarbaat loo. yow nga ni moo bon. dafa baaxul sàcc la. yow ku ñeme yàlla nga. kenn gënu laa ñeme yàlla yow moomu. Eh, ah. Ah. kenn gënul xoolal kurus nga yor waaye kon. yow mi sa sa baaraam nga yor rek. na lu may seet torop. Oh. waaw bu ma taxee tiim la buñ toogee ma tiim la. lolo la may sans ak tek ci tamit saa mu jukkee nga ma ginnaw jaal wi new yoon. sëñ ya mako tek de ni rek la la nek sa ndey gis nga ko. gis nga mon papa coow li coow li coow li yëpp. ma ci gëna metti. amour maternel mom ñun amuñu ko. bu la waxul kër Codé Ndiaye. wala keur Cheikh Diouf. dom nak foofu. amour maternel do li ngay wax. lu jële jëme kaw la. Ah. am ngeen amu ko. amuñu ko de. même man sa bay amour intérieur. ci dara. yow mi man waaw man mooy sa baay waaw loolu moom jal naa wax noonu laa def ak moom ah bon maa la loolu nag papa waaw amoo biir fii kii dégg nga na nga si doo ci kii rek naa ci bàyyi sa fuy ma waaw papa loolu noonu am insisté ci bu baax bu baax aw ma ci fi nga dugg dafa jafe dugg de uh-huh. waaw waaw booy jëlal gaz bi jël gaz bi ñu egg ci biir ma récupéré nga tegal ma caay lii kay moom topp naa di. Eh, eh, eh, fii bu ñu expliqué yow bu réplique da appliqué rek. Eh, eh, ah, waaye eh, xoolal man li nga expliqué yëpp expliqué wu ma ko. waaw la. Sarko may tëdd fii di nelaw. ma yow gis ma sama téléphone. moo ko jël ah. yow day kontaan day yey na. est-ce que wóor na la moo ko jël. bàyyi may wax nga naan ma est-ce na la man lu ma wax dëgg la dégg nga ma la baax et puis ci biir yow. ci biir waaye. teelul ma man xoolal li ma la a xamal daal mooy lan. ma sóoratul dal. est-ce que lépp yow yaa ma yóbbee lépp. yaa ngi dégg waaye Sarko man lay sàcc déllu la sàcc. saa góor moom ah.